bienvenue ci seen journal de la FIDAK 29e édition bu foire internationale bu Dakar tey nag particularité bi moo di kii di directeur général bi di Salou Keita moom moo daal di dugg ci pavillon yëpp waxtaan ak jaaykat yi ngir jox leen lii di gel antiseptique waaye ak kit ay masque moom nag DG bi jàpp na ni lu tax mu def lu ni mel mooy jàpp ci xeex bi nga xamante ne mooy xeex jàngoroy coronavirus comme ni ko askan wi yëpp war a defee ñu daal di koy déglu rappelé askanu Sénégal naan daaw organiser wuñu foire ndaxte ñun ñuy commerce ñun ñi nga xam ne ni mooy CICES dañu nekk benn institution bu état bi d'appui au commerce mbirum commerce la ñuy jàppale waaye dañu nekk si événementiel événementiel économique te ku wax événementiel activités yi ngay def mbooloo mooy ñëw te jamonoy Covid jamonoy pandémie mbooloo dañ koy tere looloo tax daaw organiser wu waaye nag président de la république Macky li mu jàpp mooy nañu relancer l'économie nationale te nañu dund ak Covid bi waaye nag bu ñu waree dund ak Covid bi il faut ñu jël sunu matuwaay il faut que ñun ñu proposer tey euh, ministère de la santé. benn pro euh, benn protocole sanitaire sunu mag sunu xarit le ministre Abdoulaye Diouf Sarr mu validé ko ba nga xam ne ne tey village santé la ñu installé tey pour lépp loo xam ne ne mooy dispositif sanitaire bi ngir képp koo xam ne ni yaa ngi fiy ñëw ñu war a xaar quatre cent mille visiteurs ñu war a xaar dix délégations gouvernementales ñu war a xaar trente nationalités vingt neuf la may yokk na benn ndaxte Afrique du Sud ñëw na kon di wax ni. képp ku fi teg tànk ñun war nañ la taxawu. Ah, ki nga xam ne nag moom moo fi teewal ministère de la santé et de l' sociale ah, moom it tamit mu ngi ah, sukkandiku ci wax yi nga xam ne moom la DG bi daal di wax waaye di ci dolli ne képp koo xam ne bëgg nga daal di vacciné wu boo ñëwee fii si foire bi dinañu daal daal di vacciné. remercier féliciter suñu frère. Saliou Keita liggéey bu am solo bi nga xam ne tàmbali na ko bi mu jëlee service ba léegi waaye ren nag euh, président de la république ak ministère du commerce bi ñu joxee ndigal à ministère de la santé comme ni mu koy defee dafa ñëw indi matériel bi war pour accompagner direction succès pour que foire bi ñu man ko def ci jàmm mu am réussite waaye surtout mu bañ a nekk occasion boo xam ne nit ñi dañ fiy jëlee doomu jàngoro bi loolu moo tax ci disposition pratique yi ñu jël bokk na ci dinañu fi indi ab équipe de sensibilisation ay jeunes yoo xam ne ci loolu la ñuy liggéey pour ñu mën di faciliter séddale masque bi danañ fi indi ay junniy junniy masque incha allah à partir de lundi lépp dana nekk en place pour que ñu mën ko faciliter ñu séddale ko ci biir foire bi. pour ñàkk yi indi nañ fi déjà une équipe de vaccination ñoo xam ne ñooy ñàkk lépp ñetti fan ñi ngi ci biir foire bi. képp ku bëgg ñëw ci foire bi wala ku fi nekk te bëgg a boo ñëwee da nga ñàkku te doo ci fay dara indi nañu dose bi nga xam ne moo gën a yomb muy Johnson and Johnson bi district nord ñoo koy ñoo def li ci des tamit am na équipe bu test yi pour sida bi tamit ñi fii ñi nga xamante ne nii ñoom la DG bi demoon jox ay gel ak it ay masque di jaaykat yi fii ci biir foire bi rafetlu nañu action bu ni mel ñoom it wax nañu seen xalaat euh, monsieur le directeur général de la CICES monsieur Salif Keita ñu ngi koy remercier grandement parce que li mu def mosuñu koo am ñun pavillon orange ñëw na ne meekuñu laaj ñu ndax suñu stand yi pare na à temps ñu ne ko waaw am nañu ay moquette vraiment toppatoo nañu électricité bi aussi c'est bien fait d'ailleurs sax jox nañu ay masque jox nañu aussi ay gel dama man fu ma tegati sama gel jox nañu ay gel jox nañu ay masque vraiment daal dañoo am satisfaction totale. kontaan ci DG moom moo rafet. ndax lu tax moo rafet depuis ñu dugg faal ba tey suba gu jot mi ngi ñëw duñu xool baxam xam daaj nañu baxam pare nañu baxam xam jaay nañu baxam xam soxeeku nañu te loolu dafa fier ci ñun ndax en tant que ex ñuy exposé lu toll ni DG di déplacé di ñëw di ñu xool di ñu laaj suñu avi di ñu nemmee ko ba di ñu jox lu ñuy aññe kon dañuy kontaan ci moom kon dañuy ñaan yàlla téeñam bi yàlla na oyof surtout dafa def foire bu set foire bu am classe foire bu dynamique muy doomu plateau xamee ay yaam li ñu gën a neex démb dañu dem di julli jumaa en tant que vieille dame mu déplacé fa mu jullee ñëw sargal lii la ñu leen andiloon ci seen journal de la FIDAK di fàttali ni temu ren bu foire bi moo di fexe ba lii di agro business daal di nekk benn pilier ngir développement économique ak social bu réewum Sénégal jërë ngeen jëf rendez-vous demain.